donc Alioune Sarr moomu génn tey pour demal boppam ban particularité lay lay mettre au devant de la scène ak lan moo koy différencier de de de lan la mën a jaay Sénégalais yi lu bokkul ak li nga xam ne moom la Amadou Ba yor fas yéene ko jaay Sénégalais yi. je suis très de votre question tu parles de Amadou Ba Amadou Ba c'est pour la continuité nous nous sommes pour la rupture d'un deuxièmement tu parles de nekkoon nañ fi effectivement mais le dernier mot ku ko yor kan mooy signé gàcce ngalaama les six ans que nous avons fait au ministère du commerce zéro ñun rek ñoo ministre boo xamante ni dañuy jéggaani dem di financer ay bus amul benn ministre bu koy def ñu nekk tourisme transport aérien Covid bi ñëpp dégg ngeen les fonds de Covid on nous a alloué quatre-vingt-trois milliards zéro faute et type nouveau boobu. le Sénégal soxla et nous su parti bi ñu nekkoon on avait dit en 2019 on avait un candidat c'était Macky Sall mais en 2024 l'AFP aura un candidat ñu nekkoon si ñàkk si nekk quel que soit alpha qu'il pleuve ou qu'il dañu doon nekk candidat. Moussa Niass da leen trahir wala. dinañ ñëw ci loolu sax mais moi j'aimerais bien que nga ñëw carrément si ce que waaw si ce que euh, Alioune Sall propose en fait. ce que Alioune Sall. ce qu'il propose. qui soit vraiment différent de, de ce qu'on... Mais la rupture, actuellement les gens massent à leur faim, muy sama kër muy seen kër. La vie coûte cher, trop cher même. Nous, chez nous, on mange pas notre faim. non ma yow. Sénégal actuellement les gens mangent à leur faim muy yow muy man man chez moi. tu manges bien on n'assure pas les trois repas. <laughs> tu franchement ah bon. non je suis très sérieux je parviens pas à assurer les trois repas. comme dans beaucoup de familles euh, dans beaucoup de familles. yaa ngi ndékki yaa ngi ndékki. yaa ngi añ waaw yaa ngi reer. Mhm. n'est-ce pas. je man maa ngi koy def. waaw mais c'est pas tout la famille. qui le fait doyul. mais effectivement c'est pourquoi que moo tax man la. ñun bi ñu fi nekkee ñun ministère du commerce. Mhm. demewul woon ni la rue du Valet ku fi indi. ñun programme bi ñu ni mooy. Mhm. Macky a beaucoup fait sur l'infrastructure. xamuñu fi ñu jëm. mooy il faut xale yi bay il faut xale yi sànni il faut xale yi nappi Sénégal googu lañu soxla mais ñi dem ci géej gi di dee leen fay yóbbu te pourtant suñu demee dañ leen di bayloo ñaata tonne de la Sénégal la Sénégal di dépenser par jour tabaski ñaata xar ngay jënd ci or yi ngeen di takk yéen fii lay jóge dem su ñuy gën a cher. képp kuy tabax yaa ngi utiliser fer fan lay jógee